الخير asalaamaaleykum euh, mbokk yi comme ni ñu ko baaxoo def ci bépp reportage euh, bu tegu ci suñu loxo euh, ni ki tey équipe Zoom production ñoo dellu siwaat ak yéen fii ci Mboro li ñu fi tax dikk nag moo di suñu wasiila di suñu jëwriñ di suñu sëriñ di suñu xarit mu di sëriñ Mbàkke Madina moom sëriñ Moustapha Bassirou mu mel ni nag bi way juróom yu baaxoo di dund mu di sëriñ Moustapha Bassirou da ko dëjoon fii ci Mboro Euh, mu nekk fi nag nekk fi ak ndigal euh, euh, way juróoma boole ko ay ndonga mu nekk fi ci turu Serigne Moustapha Bassirou bi yàlla dogale Serigne Moustapha làqu mu toog fii di mottali kóllëre googu ba moo waral tey bis bi mboolem taalibe bu nekk ci Sénégal te jokk ci moom mi nga xam moom moo di Serigne Mbacke Madina wala nga yaakaar Serigne Moustapha nga bàyyeekoo fu ne ñëw fekk ko fii ci Mboro fi nga xam ne fi la nekk di fi liggéeyal mamam Serigne Touba di fi liggéeyal mamam Soxna jaratullah di fi liggéeyal wajuram wa mu Serigne Moustapha Bassirou Mbacké ñu war fi amal nak cant go xamni dañ koy dello ki nga xamni mom mo sabab mbir mi mu Soxna jaratullah mu melni nak ci bisu tay bi sëñ muntaha mom Serigne Bassirou mu Serigne Touba khadim rasoul war na fi tew képp ko xamni rek yaakar nga Serigne Touba tamit tew na fi. kon luñ def rek euh, dugg ci biir kër gi xool li fi amoon ñu présenté leen ko ci teewaayu Pafa. nee na bis bi nag doomam bii doom ko mu bàyyoo leen su dafa am lu muy wund ngaa jur doom te doo ko jur non nee loot boo ko yàlla waxee ne lay si man ali ahlika doonul sa doom moo ko jur waaye position yi ñoo bokkul kii nag dafa di seen dom joo xam ne seen position la jàpp ndax baayam sëriñ Moustapha Bassirou noonu da ay xale lañu waaye am na lu mu ak lu mu daan doxal ak sëriñ Mansour booba nekkagul xalif général daana fa ñëw ñuy gis fonk gu ko fonk ak yu dox seen ci ko noo ko gis kon moom bu ñëwee fii di doxal loola di dundal loola def na la nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko dénkaane dani wa min abar birri an yusil rajulu ahla wudi abi yow day sa ñooñi bàyyi sa xariti bàyyi mbaa sa mbokki bàyyi ña sa bàyyi nekkoloon doon jonjanteeg ñoom bokk na ci liy baaxal mbaax li gën ci li gën nit di jokk loola loolu nag moom ca la sëñ Mbàkke Madina nekk nee bëggunoo guddal ci seen kanam daf di service rek bu ñu ni jox ndax <laughs> nee na alaaji Malick maamam nee na sa sëriñ daal boo toogee moom bul baril wax de doonte moom ma ngay wax ndax xurma waaye lii nag day loo xam ne dafa jóge ci yow jëm ci yow jaar ci nu rek te it lott nanu nag wax lépp ba mu mat nee nag ñu ngi ciy profité nag nee di jotal nuyoo maam Malick Sy doomu xalif général bi yàlla dafa dogal ñu xamante bokk fi yëngutu moom mu nekk ci di def rafet moom itam amul lu muy woote moom maan Malick ci wàllu boppam te waxul ay njabootam ñu dem fa kenn mënu leen ca loolu nag sëriñ bi dañ leen ko war a seedeel ngeen xam ko rek Mbàkke ñu ngi balaax nag mu ngi bëgg a guddal te xayral kalaami maa xalawa dal waa sëriñ bi nee na xanaa mu delloo nuyoo rek sëriñ bi nee na dégg nanu wax ji bu baax nee na ginnaaw bu nu gisee jëfin wu rafet wi nee na rawatina kàddu yi jóge ci sëriñ Mansour nee na jóge ci njabootam gi ñoom ñi njaboot gi nee na ñu ñëw fii jottali kàddu yi nga xam ni moo jóge ci Serigne Mansour si nee na yëg nañu ko bu baax a baax sëriñ bi nee na ñoo ngi ciy cant itam cant gu rëy Nena sunu dom jii fi nekk rafet lu nanu taxawayam rafet lu taxawayam ak bis bu mu waxe ni bisu mam jaara la bi moo taxoon li jóg di jafe-jafe nee na ma dogu ci ñëw ci bis bi sëriñ Muntaxa nee na bi ma ñëwee nag daje feek njabootu sëriñ Mansour yii fi ñëw nee na loola sant nañ ci bu baax a baax nee na yoon wi dañu ko gàttaloon lool bëggoon rek ñëw gis sëriñ Mbàkke màddina rek nee na ba njaboot gi fi nekk xam ni ñoom it ñu ni nun daal ñëw nun fi rek ngir bëgg leen a won ni sëriñ Mbàkke mii am nañu ci moom yaakaar sëriñ bi nee na rafetlu nanu it taxawaayam bu baax a baax nee na dëgg nañu yit ni nit ñi àndeek moom nee na loolu moo taxaw rek ma doog woon ci ñëw fekk ko fi moom sëriñ Mbacke Madina fekk fi it nag njabootu maam jaara buso yim fi nekkal sëriñ Muntaxa nee na loolu rekk moom ma yëkkati woon ñëw ba gis leen rek daldi di ko nag sëriñ bi nee na waaye nag yaakaar ji ma fi amoon nee na lu bari dolli na ci nee na ndax sunu bokk yu baax yii di njabootu Seex Amadu Mansuur ma daje feek ñoom nee na sëriñ yebal leen fi ñu ñëw fi ñëwin wu rafet wii ñu fi ñëw taxaw nag taxawaayu bu rafet bii ñu fi def jottali kàddu yu baax yu rafet yii ñu fi jottali sëriñ bi nee na loolu kat alhamdulilahi rabbil alamin nee loolu kat sunu yaakaar dolli ko na bu baax dolli ko na ci sëriñ Mbàkke bu baax nag dolli ko ci njabootu maam jaara bu sa gii nga àndal liggéey bi Mbàkke nee na boo fi nekkoon nekkin wi nekkul nekkin wu rafet kon kat doo fi xewle bay woote ba ma di fi dajeeg sama mbokk yu baax yii kon man bu ma taxan a jóg rek lu ma taxan a jóg rek nee na dolli ko naa ci yaakaar bu baax a baax gën naa ci am xel mu dalit nee na sama xol sedd na ci guy yi itam kon daal li ma tax na jóg rek mel na ni moom fekk naa ko fi fekk fi loo xam ne kowe na sama njort noonu rek la deme Mbàkke sëriñ bi nee na noo ngi jéggalu bu baax noo ngi siyaare bu baax nee nañu ni jottalil siyaare ba nag kilifa ga ñu ngi koy siyaar bu baax a baax a baax di dolli ko nag bu baax a baax ci jëfam juré ji mu jëf ne lii sëñ bi wax ni diggam ak sëriñ Moustapha nee na noonu rek la deme de nee na sëriñ Moustapha joxoon na ko cëram nee na ànd na fa sax nee na mu tax koo jóg nee na kooku ku ko ñoroon la nee na ku mu yittewoo woon la ku mu defoon kilifa la loolu xam nañu ko ci moom bu baax loolu nag sëriñ bi nee na lool lañ su bàyyee insha allahu ne daan ko ko xamal bu baax a baax daan ko ko sàmmal bu baax a baax loolee nekk diggante mag sëriñ Modou sëriñ Moustapha ci jëf ju rafet neena lolo kat gën na ko feeñal gannaawam ci jataay bi rek yëng nañu ko ci bu baax baax kon sëriñ bi neena na am nañ ci cant gu rëy ne dolli ko nanu ci yaakaar itam nag kon bu ngeen delloo na ngeen nu seereel sëriñ ba bu baax na ngeen ko siyaareel santal la bu baax baax ci taxawaayam ci lislaam ji ci réew mi sëriñ bi nee na xam nañu taxawaayu sëriñ Mansour bu baax a baax a baax kon nag noo ngi koy gëna a dalaleem xel nag di ko ñaanal itam nag sunu boroom bàyyi ko fi. ca na mu ko bëgge nag ba mu mën a àggale liggéeyam ci lislaam bi yëpp yéeneem ci lislaam bi yëpp sëriñ bi ne ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax neena dëgg la nee nag ak ñaanam lañu jëkk a soxla woo door koo sañ ñaanal nag waaye kon nag jataay bi dafa gàtt ndax dama ne woon kat damay yegg rek gis sëriñ Mbàkke daal di wuññiku waaye foto fa tabaarakallaahu ginnaaw daje naa fi ak mel na ne aaju yëpp faaju na ndokk yàlla nee na nga nu santal sëriñ bi bu baax siyaaral na ko bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf loolu mooy kàddu yi bàyyi ci sëriñ Mountakha Mbacké bi mu yëgsee jàkkaarloog njabootu sëriñ Mansour si fa tabarakallahu taxawaay ba rafet na lool léegi nag dañuy déglu ndigal ba ci kanam Hayya رسول Mbàkke Madina mi toog mu ñëw fii ci Mboro ngir saytu liggéeyu maam Jaara mu daldi woote ñu wuy si ka ca jëkk wuy si mooy soxna aram ñang di jëwrin daldi ko ni fa ma doon woote ak lu ma doon def bàyyi naa ko ñëw topp ci sa ginnaaw Mbàkke nu topp liggéey boobu ànd koog moom Mbàkke mu sellal ko lool nu jébbali ko ci jamono sëñ saa Basiru ay yoon mu gërëm nu ci kanamam boole noog moom xamal ne nu sëñ Mbàkke mii de ni muy doxe ci liggéey bii bu ko ñëpp doon doxee dana gën a yomb ndax moom day mbàkke li muy wax mooy képp ku bëgg a liggéeyal soxna jaara ni ko sëriñ bi santaane at mu ne fexeel ba dagg carte wi ñuy jaayee ñeent wi ñuy wecc ko ñeenti téeméer loola ca la teg tànkam ñu topp ko mu leeral ko nañ ndax booba jamono jooja aman na ñoo xam dañ doon bees kël rek di wax ne addi soxna jaara bu ñu demee ci dëkk laaj keesi soxna jaara fi nekk jox leen ñu dem yóbbu Poroxaan mën naa am mu yegg mën naa am du yegg sëriñ bi ni loolu day ndaxam baax na waaye def ay carte ñu di ko wecc ko at mu ne moo gën ku bëgg a liggéey soxna jaara muy góor muy muy jigéen muy mag muy ndaw fexeel ba at mu ne nga yor carte yi ñuy wecc ko ñeenti téeméer xamal ne ko ne saw ñaq dem na ci liggéey maam jaara boobee loola sëriñ Mbàkke ànd ceeg nun nu topp ci ginnaawam mu duna ci womat leeral ko naññ mosunoo wax daray boppam lu may liggéey bi nii la liggéey bi nii la nu topp ci moom du laal xaalis du ko gis du ko dégg dañuy andang ak teo teew fi kanamu sëriñ bi mu ñaanal nu nu dem ci bureau bi daayira bu ne teg sa liste ñu daggal la say carte bu mat ku la joxoon ñeenti nga daggal ko carte boo ñëwee ku la joxoon nga jox ko carte am loolu ci la ñu ànd ak moom ba làq ngërëmul sëriñ Moustapha Bassirou ñetti yoon sëriñ Mountakha mii nekk fii nu dem ci ñaari yoon ba ñett làqaan ngërëmam moom bi nu ñëwee mo wax kon nak nan sant soxna jaara ndax kuy liggéey diko setal ba ngeureum war ngaa sant ba ñu xam ne yow mii laq nga ngërëm barki dem rek la nu mujj jaar de ñaay jëm Dakar waaye dëkk bu nu fi dem bu leen waxee ne sëriñ bi liggéey dañuy wax ne noonu day yeexal na noo xam lii ndax ñun dañu fi ñëwoon dañuy sampaloo daayira soxna jaar waaye membre bu nekk nag tu bëgg a liggéey soxna jaar am nga carte ñeenti téeméer loolu mosu fee am yeneen ko fi jëkk a wax ba ñooña daal dinañuy mobiliser ñëw bokk ak ñun liggéey bii ngir leer gu liggéey bu leer ko def lu nekk feneen foo ko naa am mu yegg waaye li Serigne Mbacke nag loolu la taxaw ànd ca fédération bi ñu toll ci fanweeri daayira ak juróom-ñeent ba tey ji ñëg si fii làq ngërëmul Serigne bi ay yoon yoon mu ne kon kat nanu sant soxna jaara ndax liggéey bi leer gi mu leer moo nu may lii jitaay bi sëñ Muntaxa fii ci mbooroo bu nu ko amee liggéey soxna jaara te rafetal ko wéral ko topp ci ginnaaw Serigne Mbacke Madina loolu moo ko may kon ma ne nan sant Serigne Mbacke Madina waaye nan sant waajur yi waaye nan sant it ndax gindi gi mënu gindi ba lépp loolu defati ci yoonu soxna yaaru yi mu leer nañ nu teg ko ci ndigal teg ko ci passif àndandoo ko li may jeex jeexal nag mooy maa ngi woo ñëpp lii moom kenn weddati ko ñëpp ko teg bët kenn ku nekk xam nañ liggéey bii sëriñ Mbàkke Madina jiite Mboro ak li ko wër ba génn mbooro génn région bi dem ci ba génn bitim réew dem ba nii kon ba liggéey bi leerul woon bis bii du ko am jotaayu sëriñ bi du ko am kon sëriñ bi woote ba mu doon woote mi ngi woo ñëpp. ku ñëwoon ak ku ñëwul xam ne sëriñ bi li muy wax mooy at mu nekk nit kenn ku nekk te bëgg a liggéeyal maam jaara na dagg kartu ñeenti téeméer dañ koy àndandoo di ko defi ak a ñëw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa mi ngi nuyu ñëpp nee mi ngi sant bu baax jéegu yi mu jógee Touba ba egsi fii ñëw fekk si fi sëriñ Mbàkke Madina mii ak bokki taalibe yi ma ñu fas yéene liggéeyal sëriñ bi ci maam jaara nee na loolu bi mu ko yëgee xam yitte yi sëriñ itam loolu bi mu ko yëgee xam yittey sëriñ moo waral mu jóg ñëw ngir mbooloo mi àndal sëriñ àndal liggéey bi ñu xam ne moom mii sëriñ bi yëg na seen yitte ak seen taxawaay ci liggéey bi nee na loolu rekk mooy li ko yëkkati nee ndax taxawaay bi dafa rëy ci moom lool ndax yéen ji nga xam ne am ngéen ko ak Pastef bi nekk ci yéen ngeen ànd kook sëriñ ci li mu xam ci sëriñ nee na loolu dafa sori ci moom lool nee na loolu moo tax mu dogu ci ñëw ba fi yéen ku bokk ci mbooloo mi fekke jataay bii mu xam ne yaa ngi fi koo xam ne ci la bokk te ñëwul itam mu xam ne sëriñ bi ñëw na fi ma dara yëkkatiwu ko lu dul ngeen xam ne yëg na seen taxawaay ci liggéey bi te liggéeyal Serigne Touba dong ci lañuy ñuy fas yéene jaay sunu lépp te liggéeyal Serigne Touba itam liggéeyal ko ci maam jaara amul dara lu ko mën a jiitu mu tële mu dogu ci ñëw fi di leen sant si bu baax cant gu rëy ci moom sëriñ bi nee na ñu xam na li ngeen seq ak moom bu baax te loolu mooy wala réew sëriñ Tuubaa ne na leen ko yéene jàppal téyal leen ko ànd koog yéen ba ba muy fekki borom sëriñ bi nee na soññu ngeen ko bu baax a baax. nee na xam na yéene yi ak yitte yi ak pasteef bi lépp xam na ko bu baax baax. nee na loolu nag la mu ciy njëkk jariñoo mooy def ko ab soññ ci moom soññ leen yéen ci seen bopp itam ngeen nu bokk sant sunu boroom bu baax a baax sunu borom mi nga xam ne moo leen may tawfeexi Serigne Touba jooji ndax sëriñ bi tawfeex rekk la توفيق بروم له كوام توفيق رك موي عندك موم نكون نك نغير سانت بو باخ خم لي گنا خم نانا خم گين كو صاح واي گين خم بو باخا باخ تي گنا گور گور nu fas yéene rek gën a dëgëral sunuy laxasaay fas yéene sax ci li sëriñ bi bëgg góor góorgóorlu bu baax a baax sunu kem kàttan sax ci jaamu yàlla góor góorgóorlu sunu kem kàttan fas yéene sax ci liggéeyal sëriñ Touba liggéeyale ko sunu lépp nag ñaan baax a baax ci baaxum sëriñ bi suñ tawfeex jooju nu am ñu di sunu ko dollil bu baax a baax ndax ngëneelul sunu borom amul fu muy yem ñu ñaan sunu borom mu dollil na ko bu baax a baax gën noo xiir ci liggéeyal sëriñ bi njariñ la loo xam ne lépp a ngi ci biir njariñul àdduna ak alaaxira lay boole njariñul biir ak bitti lay boole ne kon nu sant bu baax a baax nu fas yéene góorgóorlu bu baax a baax nu xam ne itam sunu boroom danoo bind te jaamu ko rekk moo tax mu bind sëriñ bi mii munu booleel nag bi nu ko gisee ba bi nu ko noppee gis ci boroomam rekk nekk bàyyil nu fi itam liggéey bu rëy te yoon wa xalal nu ko ba mu leer muy pàgguteef bu rëy ba mun a fi bàyyil loolu nag sant rekk lañu ci man ak góorgóorlu ca bu baax a baax nag tawfeexi sëriñ bi ku ko am tawfeex jooju moo lay wamal te kaw ngërëmul yàlla rek la ñu bëgg ñoom xam nañ ne ngërëmul yàlla moo dàq aljanna kon nag nanu sant bu baax a baax ndax sëriñ bi looloo ko fi indi woon xamal nit ñi seen borom gindi leen ca yoon wa wammat leen jëme leen ca sunu borom loolu rekk moo ko fi andi woon kon nan gën a xam loolu bu baax a baax ci gën a noppal sunu bopp bu nu ca nekkee rek sunu xel di dem ci xéewal la sunu xel di dem ci xéewal lu ca kawe sunu njort moom rek lañ ca yam lu ca kawe sunu njort ndax loolu ku ca nekk te sax ca te mu dëggu ci yow da am loo yëg ci sa bopp mu di texe. mu dig texe. nag nañu ko mën a firee. mooy muccug àdduna ak muccug àllaaxira. tawfeexi sëriñ bi foofu rekk la nu jëme muy pàgguteef bu réy bii mënu fi bàyyil kon góorgóorlu sellal sunu yéene te yàlla rekk tax góorgóorlu wéral sunuy pasteef waxtu wu ne nuy góorgóorlu di yokk sunu itte bu nu defee loolu dañu nuy gàttandu day mujj dox bi yomb lool noppal nu itam ci lépp ndax dundu àdduna gi kenn ku ci nekk la ciy cëram sunu borom noppi na ca lu mu mën a doon jarul sonn dëgg la nit yàlla bind na ko noo xam ne yitte day na ci moom moo tax mënta toog loxoy neen kon faaw nu yëngutu la lanu defe ne sunu njariñ lay doon yëngatu bi moom sañu nu koo bañ mënta ñàkk dañ ñu koo binde waaye la am njëriñ dëgg. noppale. mooy wut yàlla rek. waaye nag looloo tax yàlla des koy wut. li ci des lépp moo ko amel. moo xam waxtu wanu cee jot. moo xam fanu cee jote. waaye yàlla noppi na ca loola waaye nag li nu sëriñ bi indil moom faw noo koy bëggal sunu bopp wutal ko sunu bopp te sax ca dàkk loolu moo di taalibe rek eh, lii mu wax lépp li mu wane lépp tënk bi mooy ak taalibe rek eh, baatu baatub taalibe du ba du waxi wolof baatub arab la mooy sàkku ngërëmul yàlla waxtu wu nekk nit ki boo ko gisee la ca dàq la ca gën mooy nga xam ne kii waxtu wu nekk mi ngi sàkkoo xam yàlla waxtu wu nekk ma ngay sàkkoo nekk ci lu neex yàlla kon waxtu wu nekk nee waaye sunu boroom rekk la koy seereel xamoon na ne ci lu baax rek la fi nekkee moom sëñ Murtala bu bëriwul lool itam gisee bi bëriwul noonu waaye ba ma ko gisee rek la am xel mu dal ci moom xam ne dana fi am njariñ lool nee na loolu rek lay seere ci sëriñ Murtala bi mu ko gisee ak ni mu gisee bi doon sëriñ Ahmad itam moom it noonu rekk la ko mën a misaale dooma ma ci wàllu yaari wàll yépp waaye nee na mës sa dañ di am ci moom yaakaar moom sëriñ Ama nee na naka jëkk mu soppal ko boppam ci nim ko gisee rek rawaate na ci nag wëllëre wi nga xam ne sëriñ Ama yokk na ko diggam ak moom na moom itam yëg na bu baax ne mi ngi fii ci barab bi yëg na it taxawaayam ci barab bi loolu sëriñ bi nee na ba mu ko yëgee fekkoon na sax xolam sedd ci moom fekkoon na mu am yaakaar ci moom waaye da ko naw ci tolluwaayam bi mu toll ak taxawaay bi mu fi taxawee nee na da ko caa naw lool xelam dal ci bu baax a baax ñoom ñi nga xam ne ñooy njabootam gii ñii mujj tudd noonu rek la demee ñoom sëriñ mi li mu ci waxoon rek noonu rek la moo ko jur ci ñaari wàll yëpp waaye moom itam ci baax rek la ko xam ba mu juddoo ba léegi gisul ci moom dara mu koy war a jox yaraanga nee na xanaa kay am yaakaar ci moom am ñeewante ci moom ndax bëgg lu baax gi nga xam ne moo na ci moom lu diis la lu sori la nee loolu xam na ko ci moom bu baax a baax nee loolu sax moo waral ñëw gi moom it xam di taxawaayam di gëm ak taalibe yi di gëm ak ñii fi nekk bëgg a liggéeyal maam jaara xam loolu ak ñeewante ko ci taxawaay bi ak yërëm ko ci am ci moom yaakaar loolu moo tax moo tax yoon wi waaju ko dana woon na ñëw ba gis sëriñ rek ndax ñi mu seqal liggéey bi ñu yëg ne xam na seen digganteeg sëriñ di leen ci yokk rek ndax sëriñ moom lu baax rek la bëgg ci lu baax rek la nekk kon nag bu sañoon dañu ko ci gàttandu bu baax a baax waaw dooleel aadama yi ak julli yi rek ñoo ñoo ko mën a liggéey liggéey bu nu gis bi mu ñëwee te fekk fi ay kilifa yoo xam ni sampi Sëriñ Tuubaa lanu li nuy xàjjalikoo xàjjalikoo fenn fu ne def na yitte dem fa saafonte kilifa gafa ne ba mu wëlbati mboolem njaboot gi xam ni Serigne Touba dong la toogee fii fi Mboro mu toftal njaboot googa ci kawam ba lépp lu mu yëngu jëm ci soxna jaara ñu jàpp ci ak moom ginnaaw loolu it fekk na fi ay bokki deretam yoo xam ni moom ñoo ma bokk tund wi ci ndigal li mu fi ñëwee ci la leen seeni kilifa indee woon bokk na ci ki nu ci njëkk tudd muy kilifa ak jotaay bi muy Serigne murtala Fall mi njëkk a wax bokk la ci moom ci bokk deret gu ko jige waaye gisuma gisuma benn bis bo xamni Serigne Mourtala Fall dana yek ni Serigne bangi fi te lumu gàtt gàtt dikkalu ko wala Serigne bi demal ko Serigne ahmad mbaki mi ngi fi bokk deretam la waye nonu lanu joxante yitte ñom ñaar ci bir liggey bi ni liggeyel Serigne Touba sen mam waye it ma ngi lay seral ni la mbollem ñi nga xamni cheikh Serigne Touba lanu won njëkk ko fi ndax sen mam la fi Serigne Touba daaloon kenn ku ci ne Serigne mbaki jox na la yitte joo xam buy bu bu xewleetee dootoo dootoo am sa sago yàgg sa njaboot te fekk ko ci yitteem jooja ba ba muy sotti ñooñu nag ñi ci ñi ñi ñi ci gën a ñi ci ñi ci mat a tudd ca gën cee gën cee gën cee wér bokk na ci Serigne moor Diouf Diatty nga xam ni Serigne Touba li tàmbalee ci raay bi ba ci géej gi la ko séddee woon moom day keroog ba mu fay dem maak moom ñoo ànd ñu dem ba ci Serigne Touba Diouf mii xalifa bi ma xamal ko lii Serigne Mbacke di jublu mu ne ko salaaw li tàmbalee ci raay bi ba ci géej gi lu ma fiy lif lu ne ëllëg bu bis baa dana ko ànd ak yow nek ci nek ci tek tek moko tay fekk bis bi waye mbollem njabot gi ñun ñëpp ñew nañu fi abdullah hat njaay mu ndey mu ndëylu it ak njabotam gépp ngi fi serigne Moustapha Mbacke bu Tayba mbollem ko xamni bokku bokku nga don nga dara ci serigne Touba ñëw nga bokku ak bis bi loolu nak ngir ndegalul serigne Moustapha Basirou wacc ci yow ñu gis ni ko ni ni ni ni ci jàppalee ci it muy ndigalul serigne Touba looloo tax ñu jël suñu yite def ko ci Mbacke ñun ñëpp ñoo masé maase di la ñaan nga ñaanal nu la Serigne Touba doon ñaan boroomam ci njaboot gi rafaqtu fi xidmati tawfiqi xaaliqina ñun ñun Serigne Mountakha yow rek lanu yaakaar te wér na nu yaay Serigne Touba fii ak foo nekk fu ne ndax sëriñ Touba yitte la ak jikko te seere nanu bu baax ni jikkoy Serigne Touba ak yitteem mi ngi ci yow ba jeex takk kon ñu ngi lay ñaan nga ñaanal ñu ñu liggéey bu nu mën a dee liggéey ci àdduna ñu daje ci ak ngërëmul Serigne Touba. mbokk Amin. Amin alaykum. Aminler. Aminler. Amin ya Rabbi. Yazılım mı yapıyor? Aminler. Amin alaykum. Amin alaykum. Yazılım mı yapıyor? Amin. Amin. Amin. sëriñ Mbàkke Biige Njaay moom sëriñ Moustapha Basiru moom sëñ basiiru moom sëñ Bamba tey mbooro yëpp a ngi fii ak tund wi bi ñu dugg ci dëkk bi dañoo fekk ñu ñuy teeru oto yi bari na mbooloo mi foo ko takk weesu na ko ba kenn mënta génn sëriñ Muntaxa baayam bu baax bi ñëw ñu dem stade tubaarkàlla def cérémonie officielle mbooloo ma bari lool taalu bi yëpp bokk nuyoo waa kër sëñ Bamba ñëpp ñëw fii tubaar tubaarkàlla tey ci mbooro yendas sëñ Mbàkke Biige Njaay sëñ Mbàkke nak, dafa sant yalla ak yonent bi ak sëriñ Touba ak yari waajuram ya ndax kër bayam dañu ko bëgg nonu ko kër bayam bëggee law la ciat ni la ko taalibe yi bëggee taalibe yi ni ñu ko bëggee ni la ko kër ndeyam bëggee tubaarkàlla bokkam yu bax yi bëgg ko biñ ñëwé téw soxna bali sëriñ muntaka yabal ndey xujja domam di bax ji yabal nu nu ak ajaratu amin jaay ñu ànd ak ajaratu aw Fall Moussa aw Moussa Fall mu baax mi tubaarkàlla macha allah mu ànd ak Ayda Jaxate jarbaatu Moussa Ndoye këram ànd ak Awa Maane jarbaatu Alaaji Moussa Ndoye borom këram ànd ak Ndey Penda ba mu baax mi nga xam ni Poroxaan màggal Touba màggal Cheikh Soyibu aw Fall law la cat du ci absenté day ñëw ci soxna Bali ca taalibe bu mat taalibe la looloo taxoon sëñ Moustapha Bassirou bëgg ko jox ko cër yërëm ko ñaanal ko Cheikh Moustapha mu ndaw mii nga xam ne Moussa moo ko jur ak Awa Fall ñu tuddee ko sëñ Moustapha Bassirou xamul lu dul ak taalibe yal na ko yàlla ak sëñ Touba may fan bu gudd ànd ak wér tubaar tubaarkalla sëñ Mbàkke nag mbooloo mi bari na ba mënee su la nekk ci penc mi di wax mënee su la nekk ca stade ba di wax waaye fii ci néegam soxna baal yónnee ci moom. ndexu ja ñom tok fi lañuy waxtane ak señ bakki ay baat yu gatt rek ndax señ mënees na koo mag rek waye kenn mënu ko gën tubaarkàlla ndax Cheikh mustafa bayam limu fi def kuko setlu di nga xamni Cheikh mustafa Basiru jambar la mu Cheikh mustafa jambar gi rek lañ koy woy ci muy deug ku dem Poroxaan di nga xam lolu ku ñew tuba di nga xam lolu bëgg ay bokkam defar kër tuddee ko kër mam jaara jox ko mam jaara ku Touba jur sa bay jur sa yaay am nga fa sa appartement bop ca dara manki wu ca tubaarkàlla cheikh yi nga xamni serigne touba mo cheikhal sen seen ak sen mam yi ku ci ne am nga fa keur dara manki wul lolu jàmbaar koy def ñu ni déet ma sha allah waxuma barab maam jaar bi waxuma jumaay ji waye nak keur mam jaar ci bopam bi mu ko defé ba nopi dafa demat ca daara ja def fa daara jo xamni jini jii ku dem ca daara ja sa dom nga andi ko fa ku ñew di nga xamni l'islam ak diine ak lu baax ak bëgg lu baax fii la mën a yem ci Cheikh Moustapha Basirou mu bàyyi koo fi nag bàyyi fi rakkam ji baax ji noppi ci téere yi bu yàgg Cheikh Modou Mountakha tubaarkàlla ku nekk bëgg nga sëriñ Mountakha di sa sëriñ rakkam ju am jig taalu bi rakkam ji bëgg ji lu baax rakkam ju am ji jom rakkam ji bëgg ji bokkam rakkam ji bëgg liggéeyal sëriñ Touba ba ku fi nekkal sëriñ Touba mu taxaw takku laxasaayu jox la boppam ngir sëriñ Touba loolu la ko bàyyam waxoon rakkam ji nga xam ne juróom-ñaar fukki million ak ñett la jébbale booleeg caabi yi daaru minam defar jumaay daaru minam ba mu mel nam war a mel tubaarkàlla mu ànd ak rakkam ju baax di Cheikh Abdou Hakim yal na fanam gudd te mu yàgg fi ci barke sëñ Touba nee naa la Cheikh Basirou tubaarkàlla kër goo dem doomi sëñ Basirou joo fa fekk akub taalubeem yomba xàmmee dañuy yaru te mën a wax lu baax di def lu baax te bëgg ñëpp ñëpp leen bëgg kër sëñ Basirou gépp nañ sant nag ak lu Mbàkke gépp ku laal ci sëriñ Touba rek ñu ngi lay sant di la gërëm ndax ñëpp bëgg daaru minam daaru mi neen ñëpp leen bëgg barke sëñ Touba ndax seen njub seen bëgg lu baax seen bëgg seeni bokk sëñ sëriñ mi nag soxna ami waajuram wu jigéen ba dafa baax amuk taalube liggéey fa liggéey bu rafet ci sëriñ Modou Moustapha mi ko jur mooy première xalifam sëñ Bamba bi sëriñ Modou sëriñ Moustapha sa ak mbokk ndeyum sëriñ Baara Aminata Aminata lo seen ndey tubaarkaala xarimaam njaga sëriñ Modou Moustapha bayam mo tàmbalee njaareem taxawal raay bi taxawal raay mo taxaw njaareem ni paas Touba moo tax kuy ñëw Touba di paas gërëm nga sëriñ Modou Moustapha mooy premier xalifa sëñ Bamba bi ña ca topp ñëpp def ni moom def lu baax tubaarkàlla macha allah yal nañu fi yàgg ci ona Alburi Seynabu nabu ko jur Alburi Seynabu nabu ba ca doso moo ko jur Seynabu ndeyam Amadou yàlla saa xewar Fatma kuli ko du ngoy nda wége jom bañ yàlla fay mooy yooyu ma saa xewar dafa dem ci jël ci yàlla xujja kumba jur ci aminata yàlla ak amadu yàlla amadu yàlla ku mu jur gërmi nga aminata yàlla doomi ndeyam ku mu jur yu nga sëriñ moustapha ak sëriñ m sëñ modou moustapha ak sëñ baara tax ñu ne ku mu jur yu la xarimaam ndeyam njaga yi sa tubaarkaala saa faat mi tëgg dënd taal jàngo yu ni doy dem ci néegub seey dem ci dem ci néegub gonjoox jël ci soxna ñaan kani jur ci amadou soxna ñaan ak binta soxna ñaan ak matanu bi soxna ñaan ak aminta soxna ñaan soxna ñaan kani barak kura yaasin jaxeer bajaan besangaan juuf farindu mbeeg fariyaaw joor ndeena njaay maroon te meen moom i kat meenam gonjox la ci la sëriñ tubaa namp meen mi sëriñ tubaa namp di meenam gonjox tubaarkaala soxna ñaan kani ci la fekk ci la judd maam ci Abdoulaye soxna ñaan ma ñu boole ku mën a bay ca pind ba ca ndànd tubaarkaala sëñ mbàkke biige njaay sëñ mbàkke biige njaay soxna ami sayna bu njaay faat jaw yoro jaw booli yore jaw barak ba ca xumma yore jaw boolin booj farandiku mbooj barak yakum ba borom gan ñu bari neena na bëggalul mbam mbaam du ca dee du ca dé Yeah. bismillaahi rahmaani rahiim ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di sant soxna jaara bu soo sama sëriñ bi ma gëm te wóolu ko di ñaanal sëñ bu safa basiru yal na yàlla yokk leeram te taasuñ ci barkeem sidiyal maxtaar xalif général de Mouride yal na fi yàgg te wér taalibeem ba dib xaritam sëñ muntaxa moom Cheikh Ahmad Bachir yal nañu ko yalla aaral aaral ñu ko moom njabootu sëñ Basiru gi euh sëñ bakki xam nga joggé màkk ci ay 4 h du matin munuma tedd munuma xaar mané ak lu mëna xew damay dem ci sama bisu dom ba danga taxaw taxaway bu rafet ci sama wet ndax nima mel ci soxna jaara amul dara loo xam ne danaa ko xalaat ci soxna si mbaa ma war koo def nga yëg ko nga bañ ko yëg nga seetaan ma ca mbaa nga bàyyi koog man lu ma sëmb ci soxna jaara rek ànd nga ca ak man ba mu jeex tàkk yal na la yàlla dooleel taxawu la am la aar la te boole ñu ko ñun ñëpp ak njaboot gi bis bii nga jëkk a tàntal soxna jaara yàlla na ko tànt lopp téeméer yoon te ñun ñëpp ñu fekke ko ndaxte defe naa ne léegi nit ñaa ngi yeewu ndax allaaji Alla Seen suñu riñ suñu xarit moo jëkk a dajale ay mbooloo jëmaleen ca Soxna Jaara ñuy siyaare ji Maam Jaara man ren mooy sama seen édition ci tànt yi may tàntal Soxna Jaara maa ko jëkk a tàntal ci région de cap weeru koor wu ne lañ koy defal ñu ak ñu koy bokk man bu ma masaan dem poroxaan dama yegg ci maam jaara rek siyaari ko toog fa di bernde gan ñi jàpp ca gan ña ba njël ma taal sama oto ñibbi keroog bi ñu ma booleeg sëñ Bas Poroxaan ma dem fekki ko ci këram mu ne ma boo ñëwatee na ñëw ci kër gi bu ma demee ca kër sëñ Bas laay nekk buma ma damay xaj daayira yi ma andal ñi nekk ci biir kër sëñ Bas ak man ñi ci dess ma teg leen ci kër Soxna Ami Soxna Ami proxan moma tuddé bay Baye mam Jaara booba sëñ Mbàkke gën na nekk tout tank buma nekké ci liggéey bi fété ci sa xox ne ku bu sëñ Bas ko gën ci mukk Mbàkke du bako ko mu ne ma mbaa mii nante ak sëñ sa ba caat mi <laughs> ma ne ko bàllaay saburi danaa miinanteeg moom kon lii du bàllaay saburi yàquloo ci dara cër boo war a jox rek sa yaay jox nga ma ko ndax man dama dama dama dama dama yomba àndal liggéey ci ba ku baax la ku oyof la sëñ Tuubaa rek ko ñor lépp loo dugg mu tegu ci yoonu siraatal mustaqiim ne bu araamul rek dina ci ànd ak yow maa ngi lay sant sëñ bi di la gërëm di la ñaanal te it mën naa laa ñaanal de jooruñu soxna jaara laa sa papa daf daan wax ne sëñ bi Safa Basiru ah ay da njaay badaloo de ko bëgg a xam soxna jaara dëgg nan ko ko laaj moom de daa mel ne daa jël soxna si rek teg tëj ci néeg la dem laaj ko ko donc maa ngi lay ñaanal lii sax maa ngi ànd ak euh, secrétaire général bi xam nga tey ci 4 heures du matin laa ñëw yàlla sayda na nekk portable sax kenn mënuma ci jot yoruma ko maa ngi ànd ak benn coordinatrice daayira bi xam nga ñu ci bari dañuy ànd ak man maaka maa ngi ànd ak benn notable Alaaji Ali Ndiaye sama xarit sama càmmiñ fii la dëkk presque ci mboor am na fi business bu man moo tax ma ne ko Tiwaawan laa jaar moo ma indi ne ko foog ñu ñëw siyaara la ngeen gën a xamante jàppante ndax ku baax la ku baax la taalibe Cheikh la mi amul moroom bi fi Badou jógee ba tey mu ngi may jàpp di ma jàppale ci lépp lu ma war a jàppale defe naa maa ko jëkk yóbbu Porokhane euh, ci màggal gi bi mu ñëwee dafa def ay teraanga ba ma ne ko léegi dootuma fekk Porokhane li may dimbalee dee ma ko jox ma di ko yóbbu ca ceeb ndax keroog joxe na fa xaalis bu bari ñu ngi koy sant moom itam di ko gërëm di sant waa dëkk bi yëpp bëggoon naa teel a ñëw beneen yoon nag booy def lii dama ma koy wax ma xool sama calendrier. buma xolé xoolee sama calendrier ba xamné dana joggé makka màkk ba noppalu and ak mbolo mi ñew fanan fi ñetti fan ñu ñew mais xam nga euh dafa xat té waxon nga mané ne moutakha Mountakha daf la daldi jappal la 4 décembre lim ma laaj yépp mbaa la kat dana la fi fekk mané ko ma koy ñaan yalla su frele maximum commissaire dama ko ne mënuma ñàkk ñibbi démb mënuma fi ñak jóge le 2 parce que le 4 dama am conférence boo xam ne sama doom a koy def te dafa fa soxla sama teebaay maa ngi ñaanal ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp ñi la jàppale ci bés bi ñëpp ak ñi la wuy si yal na yàlla faj seen aajo yal na yàlla faj seen aajo ku ci am jàngoro yal na ko yàlla saafara ku ci am lu la na naqari yal na ko yàlla teggi euh, ku ci sa poos diisul trop yal na ko yàlla diisal ba nga am xéewal yu bari am xaalis xaalis xaalis bu bari buñ liggéeyalee maam jaara nekkal fii soxna jaara jëmmal leen fi jëmmal fi soxna jaara te fas demee alaaji Malick feccali ko nii la lu ko nettalee maa ngi tafaam yi de ak Modou mi bu ñëwee Tiwaawan jox ko alaaji Malick ma alaaji alaaji Malick ne ko foo demoon mu ne ko damaa demoon njaarim ci Serigne Touba mu ne ko xëyee anamu mu ne ko ma nga fa mu ne ko lu mu la wax mu ne ko ah jox na ma butéel de bu xaaj ak ndox te maa ko ci def jox ko ko nee na ma li ma yàlla santoon ci def naa ko ci sama yéene ci yow def naa ko ci butéel bi waaye demal Tiwaawan boo demee Alaaji Maalik fecc li butéel bi Alaaji Maalik ni yëkkat butéel ba ni cey Sëriñ Tubaa wax dëgg Sëriñ Tubaa wax na dëgg de alal ku ko jox borom wàcc alal ko jox wàcc alal ko jox borom wàcc nga Alaaji Maalik ni yebal ñii di doomu sëñ Moor Jóob Baal di xalifa ba moom moo na ko nett li ca néegam ne nag bu jàmm rek amee samay ndaw danañu ñëw dinaa yeble ndax man suma ma wéroon maay ñëw ndax legone ini ni Bamba di mawdo mawdo modi di Bamba ne lolou gëm nako te seigne Cheikh Seydou Makhtar leral na ci lu bari yow nak makki da ngay mbokkum ñep wax deug yalla xam nga golo boko ko boko boo am nam ne ko nga fexe ben dom bu mu ci toj yang ko nattu yang koy nattu géwél boko ko micro ne ko bu saran yang koy nattu waye nak makki bu nu saran jëm fenn fudul fu bax rek ndax yow fi nga bok ko fa bok mi set la boo fa bokkee ba nopi nak bo wootee réew mi dik kon ci gattal délégation bi bayiko bal Baal ñu ngi tok fi sa délégation bii kii di Abdou Mboy jenn doomam ngi ni tok fi sa mi ngi ni doom sëñ mali Diop and ak Cheikh Abdou Mboy and ak Serigne sek délégation bangi li bi bayiko ci aladi Cheikh Tidiane Ngalgu mi nga xamni ne nek na fi 40 ans ma ànd ko ak di ko jottalil moyor yor réew mi nek ci réew mi kenn musul la ma def la ma gu defal dong ngay deg kon alhamdulillah rabbil alamin bàyyi na fi dom te bëkk bi rek ma ngi waxtane man la bu nit demé yoon wono mbacké ki déma bax way ci gindi gindigaale bu yaggé ki fi dé sa bax ngal gu nak bàyyi na fi Cheikh Ahmed Tidiane délégation bi ci mom la joggé kon alhamdulilahi rabbil alamin dañuy bàyyi kon doomu seigne mali Diop nuyo yalla dogal na moy khalifa bal tay yalla ko wër doli ko jam doli ko sutura mu wax ni mo ngi len di nuyu ci bis bi di len ci di wax ni delloo nañu bàttu ca ndaa la ndax way juróom ñàqal na sëriñ Touba ba mu gërëm ko comme ni ko suñu mag Ali Mbay waxee noonu ni la demee kon bu bis bi amee mu bis bu rëy ñu tuddee ko ko baax ku ñëpp yaakaar ku ñëpp di roy ah ngeen ngeen yónnee ay délégation ñu ñëw ba ca kër ga yëgal ko ko wan ne ko lii noo ko bokk ne loolu daal mbégteem la ko ci doon doy muy mu teewan ci bis bi tey waaye yaramam moo ko mayul mu woo doomam boole nu ak moom ak sëriñ Abdou Jenn mii ah boole nu moom ngeen dem ngeen dem teewal na ci bis ba xam naa deen tuut sax ci teewaay gi waaye moom li doon bëgg-bëggam doon yéeneem moom moom mu ci ba mu teewal fi waaye nee na mu ngi doolu mu ngi fëddi li kóllëre ak yéen kóllëre ga mag ña amee woon ba la ñu defaloon mag ña ba léegi rëccuwuñu ko nee loolu yàlla ba mu dañ ci dog mukk muy dox rek muy jam ak sutura waxna yit ne magam bi tedd ja Cheikh modou mustapha bashir dan nañ dox ay jéego diko yoni ci sëñ Modou Mansour ñuy am relation yu rafet na ko sëñ Tuubaa séqe woon ak Seydi Alaaji malik ñom ñaar ñi ay mbokk ko Moussa ko waxe dafa wax ne ca olafalam ba Bamba di Maodo Maodo di Bamba ku len di féewale xamoo lay wirda ngir soxna Mati Mbàkke sëtub maaram mooy ndey Ousmane bàyyi Maodo maa xam bàmbaa nga yor aqixatu munawara Maodo nga yor sarixatu mutahara bàmbaa nga yor baatin ba booleeg tarbiya Maodo nga yor wirda ba booleeg sart ya maam maharam di seen maam maharam Mbàkke moo leen meññ ndax maaram moo jur Abibulaay Abibulaay meññi maam Mor Anta Salim meññi Tubaa maaram meññi Mouhamadou Farimata ak Thierno Farimata Mouhamadou Farimata meññi soxna Mati Mbacke soxna Mati Mbacke meññi Serigne Ousmane si meññi El Hadj malik noonu la ñu demee doom yëkku ak doom wëllu sagari njaam Serigne Touba mi ngi ko doon nangoo ci loxo moo ko doon jox sedd Ousmane maam Ousmane nag comme que bi muy génn àddina sedd El Hadj Malick ganewul jamono loolu Serigne Touba ñëral ko ci maam El Hadj Malick ba keroog 1922. bi Seydi El malik genné adina ci tawawon Serigne Touba mo wax serigne Mourou Bëggey ak mam Cheikh Anta na ngeen dem taxawu tibawon ngeen tok ci njabotu Maodo ga lu ngeen fay jëf ngeen jëf ko buñu ñu jaaxle am leen lu nakari ci bisbu mako ak ñom relation boba nak du deñ mukk di sax di wey mom nak ngeen di saxal si mom ngeen di suxat si mom ngeen di jëmbal ci kon nak serigne bi neena leen di xamal ni seen kër ngeen ñew seen bisu bopp ci ngeen ñëw mi leen di xamalit ne ànd bii yàllaa ko digle seen l'union qui fait la force union nag du am benn njëriñ bu am toog entente kon jullit jullit mooy mbokkam jullit jullit mooy nawleem jullit jullit mooy léppam ba nu bokkee diine ji bokk lépp bokk mag ñu baax ñi ci réew mi saxal fi seen garab googa jëmbat ko fi suuxat ko fi loola mooy taxawaay bii sëriñ bi nee na diine bu doon garab la reen bi mooy yàlla dàtt bi mooy yenantu bi dafa am nak ay ay branche yu mag muy kilifa yu mag yi branche ci nek da am ay am ay xop bu ay nit dikke nag di ngàbb ay xep ak ak i ne dañuy gor garab gi kenn man kat sama yoon néewul ci borom branche be sama car bi ne la fete ñom ñuy gor rek ñun ñi ci ko di werante ba garab gi daanu garab gépp ay and daanu xop yep dana and lax lepp and yaq lolu moy diine kon ñun bu nu amé ñi waxantel ak ñi jëflantel mooy noonu ne islaam yi contre l'islam di bind di wax lu ñu wër wax ñooñu ñooy suñuy noonu kon sëriñ bi nee na seen kër ngeen ñëw yëg na leen li ngeen fi indi ci teraangaat bari na lool yëg na ko gis na ko tànk yi ngeen doxee ak fula ngeen fula bés ak jàpp ngeen ko jàpp gis na ko yow mi nga xam ne yaa bàyyeekoo it kilifa gi la yónni seriñ bi nee na àdduna ñaar rek fi nekk spirituel ak temporel kilifa ak diine ak kilifa ak aada mënuñoo ñàkk mukk di mu daarante wa kafanuhu bi bii dinu xul yamaaniyatun boo demee ci xilaas Alaaji Maalik ba loolu la wax nee na sànga nañ njool màkka ci ay mbalaan yu weex waxal na mu nga tukkee ca kooju yaman buuru yaman moo joxoon yenent bi lu toll ci fukki hàddiya bi Moustapha génnee àddina fukki ñetti mbalaan lañ boole ca mbalaan yooya taxañe ko Seydina Muhammad daal di ko koy dencee te loolu ab buur moo ko joxoon Moustapha kon kilifa diine ak kilifa aada mënuñu ñàkk di ñàkk mukk di ànd loola bu ngeen rafetalee seen diggante ak moom xam ne bu ngeen ŋànkee fii mu ŋànk fii lépp da ngeen a ànd yooyu njaboot gi bu xewlee ngeen ñëw indi seen alal boole ci seen wax yu rafet yéen a nga ca yoon wax ndax loolu rek mooy ab ànd loolu mooy jëflante kon nag sëriñ bi nee na tànk yi ngeen doxe ba agsi fii yàlla na ko suñu borom yokk yàlla ko suñu borom dëgëral mu ngi fii ci biir dëkk bi yéen a nga ci gox bi di ko jàppale ci diine ji di ko jàppale ci taxawaayam di ko jàppale ci njaboot gi kon nag nee gis na ko yëg na ko waaye nag na ngeen xamal ne delloo ngeen buum ca boy boy ga ndax kii toogaayam bii boo ko joxoon joxoon gi sëñ tubaa ñaari yoon ndax sëñ tubaa lu umman waxaban ci ndayam ak ci baayam génn ko soxna Aminatu Mbàkke mii di waajuram sëriñ Mourou saa Mbàkke ko jur mooy taawu sëñ tubaa moo ootu sëñ tubaa fukki at ak juróom-ñett wóotu baayam fukki at ak juróom-ñett crise bi nekk fi peste bi nekk fi ràmm ji nekk fi mu ànd ak fit wu rëy ak jom ju rëy ba fondement jumaa ji 4 mars 1932 te 1930 moo nekkoon crise monétaire bi amoon ci àdduna bi Cheikh Moustapha yor liggéey ba di ko doxal di ko doxal ba yàlla jox ko soxna Aminatu waajuram wu góor mooy Serigne Moustapha Bassirou Serigne Bassirou mooy waajuram kon moom dafa ndar képp yoonu murit mooy Sëñ Tubaa ci ndeyjoor mooy Sëñ Tubaa ci càmmooñ ci Sëñ Tubaa nag kenn ku ne xam nga ne diine rek ko ñoroon dara mosu koo tax a jóg lu yàlla lil Moustapha na waytumaa yu jaddidu sunnatoo xarra wa inni ahmadu ci la saxoon tànkam bii ba wax ne man kat mudda xayaat yi bi frodi wa sunan sama dund gépp jeexe naa ko ci farata ak sunna kon nag ku mel noonu bu waxee ci ab dëkk ñëpp la waxal bu jëfee ñëpp la jëfal kon benn sëriñu mbàkke mbàkke fu mu nekk ci ab gox dana fa représenté mboolem kuy kilifa ak diine benn sëriñ bu sant si fu mu nekk ci ab gox dana fa représenté mboolem kilifa gu nekk kilifa ak diine kon loolu nag xam ngeen ko mag ñaa ko jëmbatoon suuxat ko ba mu ñor ñu nekk ci keppaar gi ca yàqunu keppaar gi loola nag kon jekk na lool sëñ Mbàkke Madina nee na ku fi ñëw yàlla na sëñ jéggalu àdduna ak alaxira yàlla na sëg wér gu toftal ci yow ngeen yokku ci ay grade ci àdduna ñu yokku ci ay grade ci kilifa diine seen borom subhanahu wa taala yàlla yokku réewam ci ay xéewal dëkk baykat lañ nekk gox baykat lañ nekk gàncax gi ñor ak gi ñoragul yàlla nañ ko muurloo ci barkeb Serigne Touba yàlla bu suñu yaakaar suñu yaakaar tas ci gàncax gi ak ci tool yi ci barke Cheikhul Khadim Serigne bi waxoon na lu ëpp loolu waaye wow na mënta weesu kongu ba mu dalee wax ba léegi kenn ku ne xam nga ne teraanga rek lañ fi gars yi di indi ak mbégte mi ngi leen sant lu ci yàqu nag ci man nii la maa ngi jéggalu ci bàyyi lu mat a wax ak wax lu mat a wax ci kanamu Serigne bi wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf. Amén. salaamaaleykum mbokk yi gannaaw bi sëñ Mountakha ñëwee ba pare euh, Adja Aïda Ndiaye Badalo euh, di Baye Fallou Mame Diarra euh, ñëw wax kàddu rafet yi ñu bëgg waxtaan ak juru waajuru Serigne Mbacké ñun yàgg nañu dajeeg moom du tey la ñu mës a dajeeg moom ay ati ati ñu ñu dajeeg moom Porokhane Adja Ndeye Mbéri nga nga ànd ak waa Mauritanie ñëw di leen présenter soxna Aïda Ndiaye Badalo lan ngay wax ci sa bisu doom ji waaw dama ko waxoon ba pare boobu dugg si loo waaye li ma tax a dugg si mooy xale yi dañu ne sa mosoon nañoo gisanteeg mosoon nañu dégganteeg ay danjaay waaye dañu bëgg gisanteeg mhm. ma téléphoné sëriñ fa mu toog ne ko dama bëggoon pour xale yi ñëw gisanteeg moom. mu nangul ma ko daal di far yàlla jeexal waxtaanam ak li muy waxtaan ak ñooñu daal di ànd ak man ñëw fii. ma xamal nii ma xamal Aïda Ndiaye ni ko nii jóge Mauritanie. Mm. dama bëgg nga xàmmee leen. ñoom bëgg nañu laa xam. ndax lu baax la tax di jóg yaa ngi ci benn boor waaye ñoom it ñu ngi ci benn boor. Mm-hmm. bu màggalu Poroxaan jotee. Mm-hmm. ñoom lu nu amoon danañ ko jël ca Mauritanie gàddu ko indil ko sëñ Mbàkke ci biir kër gi. bi wax na ma ci lu bari. ngir jënd sëñ Basiir. Mm-hmm. am de kon kii lii mu wax léegi fa mu ne diñu ko defal ca xale yi waa sët moo ñu fa toogal ñun ñu toogal ko fi ci sët Mbàkke kon ñu ngi la ciy gërëm di la ci sant mm-hmm. yaa ngi nekkal foofu waaye ñu nit ñu ngi la nekkal ci kër sëñ Mbàkke ndax man sëñ Mbàkke yaayam moo ma ni woon. ba may dal sama la man ca daara ja de. waaw gis naa loolu gis naa loolu. a fay jàmbaar gis naa loolu waaye ñun ñu daal di koy ñun ñu tarbiyu ci moom rek. ndax ku nekk ca échelle def ba ba ñu yëg ci sëñ Tuubaa. am de waaw waaw looloo tax ku ne sa boor na dëgg rek te gis nañ ne sa boor dëgg dama ma ba ma fan ba ma fan la ci. waa ci samay fan si nga bokk yow. boole naa la tey waaye ñii dama leen a bëgg ndax fonk ku ñu fonk sëñ a mënoo màggal jotee lu nu am danañ ko indi lu nu xam danañ ko wax sëñ te nit mënu leen a paase loolu mënu leen paase loolu di ngeen def sëñ mënu leen ko paase yàlla na leen yàlla dooleel ba nga xam ne saa bu ngeen ñëw rek mu ngeen ñëwee ci doole rek beneen doole ngeen di ñëwee waat loolu laa leen di ñaanal di ko ñaanal moom mii fi mu ne la fa mu jàpp bu ko ba kenn ku ne loo jàpp rek yàlla na la sëñ Tuubaa téyel la ñu rek ba mu dëgër ba lépp lu ñuy def rek ci yéene lañ koy def mu yegg ci